très chers amis internautes de la Sen Série maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa su ne ak sunu ay programme seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Babel épisode 48 ñu door ko ak Xalil Xalil nag moom bañ na ba tëdd ci naaj bi ne du sëy ak ki nga xam ni moo di euh, Bambi te sax génn kër gi moom moo ko gënal daal di sëy ak baam Bambi gis nañ ni nag faa moom euh, ñëw na rek nekk comme ni mu daan euh, nekkee saa su ne te mooy di épauler Xalil waaye itam di ko soutenir ci bépp situation boo xam ne nekk na ci rawatina ci situation bi nga xam ni ngi ci ba tax na pare na sax pour bis bu xalil naree takk baam bi daal di ci ànd ak moom daal di koy jàppale parce que yaakaar naa ni euh, doom warul xëccoo ak wayjuram donte nag moom xalil nanguwul li nga xam ni moom la ko papaam bëgg a forcé euh, waaye nag ku ne xam ne àdduna daa gudd tànk te nag bu naree metti xalil mën naa dem ba nangu malgré moom ñu jàll ci Sadikh Sadikh nag moom tey rëccu na le fait que mu daal di gëm ay kàddu baam bi euh, bañoon a gëm ki nga xam ni moo di Awa Cheikh mi nekkoon jabaram ba tax na lu nekk mu ko doon def di ko maltraité ñàkkal euh, kersa lu nekk moo ko doon def euh, tax na nag tey mu bëgg a réparer erreur boobu tey nag c'est trop parce que gisatul awa ba sax di ko mën a euh, baalu wala nag di mën rek daal di réparer erreur bi nga xam ni defoon na ko ndax nit yaakaar naa laa nga koo baalu wala ngay def dara ci moom ni moom même bu fekkee ni que tey xalil bi a a na am na compassion ci moom waaye nag loolee terewul mu bëgg rek avant tout balaa dara di am ñu éclaircir ba xam ndax xalil moo jur doomam wala déet bu dee xalil moo jur doomam moom du ci ànd mu mel ni kon moom maa umu moom bëggul injustice benn yoon donte nag euh, mbir mi dafa laal doomam waaye bëggul itam doomam di réparer erreur boo xam ni euh, defu ko ma mère Fama nag moom gis nañ ni ba tey moom donte yërëm na Bambi wala yërëmoon na ko ba commencé woon di jooy pour moom waaye tey euh, jëfinu Bambi ak doxalinu Bambi ba tey mënu ko wanaasu tax na ba tey mënul bëgg Bambi ndax bu ko xoolee rek xol bu naqari lay am ci moom ñu jàll ci fa ak xalil ñoom nag seen couple nañ ciy taxaw tuuti ndax yaakaar naa ni couple bu exemplaire la couple bu exemplaire mooy couple boo xam ne euh, seen doxalin ku ci jël exemple rek yaakaar naa sa couple dina am réussite parce que euh, couple leen war mooy jàppalante euh, nekk benn rawatina su problème amee ndax tey gis nañ ni xalil mi ngi ci difficulté waaye faa taxawu na ko te gis nañ bi faa nekkee ci difficulté aussi la ko taxawee woon muy loo xam ne yaakaar naa lu am solo la ndax ay jëkkër ak jabar bu ñuy sëy pour ñu mottalante la waaye ku ci nekk fa sa moroom mënta àgg nga àggale ko fa loolu moom moo tax nit ñi di bëgg ay sëy ñu jàll ci Sadikh Sadikh nag moom euh, sentiment de culpabilité moom la am instant bii nii ba tax na mu tëdd néegu Awa seex ne da koy jox ñaari fanam loolu nag métti na joojo ba tax joojo ñëw euh, di ñaxtu moom euh, Sadikh ni am na ko nag bëggoon na ko partagé ak Père Ndiouga waaye ku ne xam na ni sa à dire saa su ne day sóoraale papaam ci lu baree bari xam na ni jamono jii Père Ndiouga problème yi am doy na ko sëkk ñu jàll ci Awa Cheikh euh, na ci kër gi nga xam ni euh, fa lañ ko foroon dugal ko fa euh, ba tax na ki nga xam ni moom moo ko foroon nga xam ni dafa bëggoon na ñëw daal di koy toppatoo ba du am dara lu ko métti moom ak i doomam ñëw nañ gisuñu ko mu mel ni kon moom Awa Cheikh bëggul sonal nit waaye itam bëggul rek di am problème la di indil kenn problème ñu jàll ci faa faa nag li ci kër gi Bambi bi daal dina koy ñëw nettali yaayam ak waa këram waaye gis nañ ni euh, yaayam comme saa su ne rek ni mu koy doxalee digal na ko mu sëy digal na ko mu jàppale jëkkëram digal na ko itam ci côté bu dara manqué lépp loo xam ne doon na ko taxawoo jëkkëram wala doon na ko mel ak jëkkëram na ko continuer mu mel ni kon yaay ju euh, na yaay joo xam ni ju am la ju jara ñaan la ndax yaay ju baax mooy doom di sëy nekk ci problème nga koy ñaax pour mu des ci sëy nga koy ñaax pour mu jàppale jëkkëram ndax yaakaar naa loolu mooy waree fu jigéen buy sëy te heureusement ba faa moom nit ku baax la waaye heureusement ba am na yaay ju baax bu yaayam meloon neen peut-être dina ko génnee si yu baree bari ñu jàll ci maman Oumou ak mère Fama ñoom nag liñ bëgg mooy ñu xaar ba test test ADN bi génn bu dee Xalil moo jur doomu Bambi ñu daal ko koy may euh, bu fekkee juru ko nag Xalil amul benn responsabilité ci moom waaye Père Ndiouga mënul dégg loolu ndax moom jàpp na ni Xalil jur ko wala bu ñàkk koo jur yëpp day sëy ak Bambi par la force mu mel ni nag Xalil loolu la mënta dégg ndax jàpp na ni papaam euh, euh, da ko bëgg rek du nangu loolu ndax jàpp na ni mu jur doom jeg ñàkk koo jur yëpp du sëy ak Bambi ñu jeexal ak moom Bambi Bambi euh, ba pax rek loolu lay wane saa su ne gis nañ ni du bàyyi ndax gannaaw bi mu a yëngal sëyu a tas diggante jooju ak Bambi mu mel ni euh, diggante jooju ak euh, Sadix moo bàyyi kër gi la nar a tas tasar gi la bëgg rek daal di jaxase diviser pour mieux loolu la nar a def te su ma yiwul nag dina réussir ndax gis nañ ni faa maturité bi mu am wala faa compréhension bi ne ci moom nekkul ci ki nga xam ni moo di joojo ndax joojo xale la te nag day xët-xëti fu mu toll te bu gisee baam bi ak euh, euh, Sadikh xam ci benn dul rek mën naa indi euh, problème ci digganteem ak Sadikh kon mbokk internautes yi foofu la ñuy yemale épisode 48 bu saison Baabel ma jox leen dig daje bu épisode Baabel ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye lataa boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi pour ngeen di jot wooyi à temps réel jërë ngeen jëf